mbokk jullit yi mbokki taalibe yi fo leen mën nek ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak di leen baal ak di ziar ak ñaanal bu baaxa baax Serigne Touba Cheikh Mountakha mbake khalifa général des mourid mu yàgg fi loolu te wér ba lim yene yéene Serigne Touba cheikh Khadim suñu borom defal ko ko waaye lañ koy ziare mbolem jabatuk Serigne Touba gi rawatina khalifa Cheikh Mouhamadul mustafa di Serigne Ahmadul Makhtar mi nga xam ni ci am péncam lañ nek di ziar mboolem ñi aju ci darul xuddoos mo xam muy cheikh si wala kri aju ci kër Cheikh Mouhamadoul mustafa niñ ko andé won ak yéen nak nag ak legi ngir wajal magal gu nga xamne ni moy magal gu ñi amale fi ci darul xuddoos muy màggaluk Cheikhul khadim di bis bi nga xamne ni ci la Serigne Touba Cheikhul khadim tanun dekkale ci ak boromam ci dëkk bu tedd bi te Cheikh Mouhamadoul mustafa taxaw won ko gannaaw bu mu ko joxe ay ndénkaane yu am solo ngir wajal bis bobu nak ren gi ñu ànd ak waa diwaanul muridina di kurel gu nga xamne ni moo lëkkale mbooleem yeneen kuréel yi aju ci Daaru Xuddoos tey dundal bis boobu nañ ko àndee ak yéen nag ci cheikh yi nga xam ne nii dañoo aju ci kër Serigne Modou Moustapha dem nañ ci ay kër yi cheikh yu bëree bëri tey ji nag ñu ngi ci kër wala ñu ngi toog ak njawum dem nañ ci Kayre Mbay Kayre Mbay nag buñ ko waxee xel yëpp day dem di Serigne Maxtaar Mbay Kayre moom itam bokk ci kenn ci cheikh yi nga xam ne nii ñu ngi leen di tudd fii ci kër cheikh Modou Moustapha Euh, di ziar bu baax baax xalifaam Serigne Ndiaga astu Mbaye yàlla na fi yàgg loolu te waaye jataay bi ñu ngi ko séq ak Serigne Ibrahima mbay fëre ñu suñu côté ndeyjoor ak sëriñ Khadim mbay ñu fas yéene waxtaanee nag ñaari tomb yu am solo euh, muy euh, diggante ki nga xam ne nii mooy sëriñ Makhtar mbay ak Cheikh Modou Moustapha wala Serigne Touba Khadim Rasoul ak itam waajtaayu màggal gi nga xam ne nii wax nañ leen ko léegi moo sabab. waa diwaan ànd ak mbooleem ñi nga xam ne ni ñooy eh, tàbbi ci màggal googu def liggéey bu am solo bi kon sëriñ Ibrahima dañ lay jox nga nuyoo ñu door a ñëw ci laaj bu njëkk bi. mbokki julli yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ci réew mi ak bitim réew di jiitee ci nuyu bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaana sunu borom yàggal ko fi ak mboolem njabootu sëriñ Touba gépp waaye di ñaanal sëriñ Ahmadul Muxtaar mu yàgg fi lool ak njaboot ak Serigne Modou Moustapha Mbacke gépp waaye di ñaanal njaboot ak Cheikh Moukhtar mbay Kéré gépp ci njiital Serigne Ndiaga Astou mbay ak Serigne Bachirou mbay mi nga xay ne mooy kilifaak euh, kër Serigne Modou Moustapha gi ñu nekk ñu nekk ci Kéré mbay tey ji suñu ñoo ngi leen di nuy di nuyu waa diwaan bi di leen nuyu te di leen sant di leen gërëm ñu diglu laaj yi ba ci kanam. jërëjëf Serigne Ibrahima mbay ci nuyoo yu matale yooyu kon niñ ko waxe woon rek noonu la ñu koy daal di defee. kon sëñ Ibrahima ginnaaw bi nga nuyoo mbooleem nit ñi nga xam ne nii jamono yi ñu ngi lay seetaan fu nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi waxtaanee jàmbaar kenn ci góor yàlla yi nga xam ne nii dañoo àndoon ak Serigne Touba waaye kenn ci góor yàlla yoo xam ne nii gannaaw Cheikhul Khadim dañoo wéyal seen ànd googu ak Cheikh Mouhamadou Moustapha muy Serigne Makhtar mbay Kayré euh, Serigne Makhtar mbay Kayré bokk ci cheikh yi nga xam ne ni ñoo aju ci Daarul Xuddoos buñ bëgg na xam lan moo ko booleeg Cheikhul Khadim wala digganteem ak Cheikh Mouhamadou Moustapha lan nga ñuy leeral Euh, Serigne Mokhtar mbay Kéré nag dafa nekkan ci góor yàlla yi nga xam ne ay jaamukatu sunu boroom la woon jàng alxuraan di liggéey di jaamu yàlla ba bokkoon ci góor yàlla yi nga xay ne ku yëgan boppam la ci digganteem ak sunu boroom ba fi la jóge woon jaar na ndar ba bëgg na dem génn jàngi ginnaaw bu wax nañ ne bi mu demee ba ci tefes gi la ko am lu ko wax ne ko suñ Mokhtar mbay Kéré wuyul ku ñuy wax serigne touba neena ci la ko na man dal li nga xaay mi ngi wax ak man tim ma ci jawu ji te gisuma ko jaaxal ci la depp dal di fas yéene dellusiwaat nag bi mu mi ngi dem ci dekkam bu ñuy wax keera mbay gi nek ci bori lambay fofu la nekkan mu taggu magam ju baax ja ko dama bëgg a cheikhul khadim ndax dal dafa melni ni gént danoo boole mu ko ah, kon day de baax na yow de fi nga tollu dama ne dañ laa war a seeti waaye waroo seeti kenn mun na ko bàyyi rek ma dem ndax xam nga góor yàlla yi dañuy xamante nee na booba jëm bi ñaari biddiw yuy leer yoo xay day jàpp ci asamaan si mi ngi ci waaye nee bi mu déparé ba dugg suufas Mbàkke Kajoor rek la benn làmp bi fay nee na mu am ak jaaxle waaye bi mu demee ba jàkkaarloog Serigne Touba nee na mu am ci moom yëg-yëg goo xay nii daal lu doy waar la ñaari yëpp daal dina xay na gamaj léegi rek ci la xamee ne ki dal gor yalla la ci lako joxe bopam Serigne Touba dal di koy tërbiyee ñetti fan. Hmm, lu ni wax sayu selen mom la ko wut looy bim bi ko wacce dégg naa bi mu ko ne ci rib kër gi day reer ñu ne anako kan la ñu ne ko ganak bi gi la de mu ne wol leen mako ko bi mu ne ko muxtar am nga ndigalal ko li nga doon wut suñu borom may na ci diiram ñetti fan yi nga ci am bi mu ñëwee dellu bawal mu ñaanal ko mu delu si bawal dal na magam ju tedd jooja day doxon na sama bop Serigne Touba mu ko ana lola loo ci djublu mu lama ko fa fekk day nekku ci diggante ñaari feggu nga xam ne nee na ko daal lim fekk Serigne Touba aw jang ma yew ko leneen motax mu jébbal ko bopam and ak mom nak ci lolu ci ak talibé ba wax nañ ne kër Serigne Touba yi manam mboolem dugub yi fa daan nekk Matar bu ko daan bay bi ko joxee ndigal mu ñew Touba mu ñew Touba ila sañ ci dëkkam bi ñuy wax Mbay nak ci la waxan ne gàddaay dellu bokk ci ci la toog ànd ak njaboot gi nag daal ne képp ku di gros na ma daw si lépp loo xaay ni nii mooy alal jox naa ko suñ Touba addiya ci la ñëwoon sanc Kéré 1915 ba léegi nekk fi ba sunu borom muy liggéeyal suñ Touba di diglu ndigal ba ci liggéeyub jumaa ji fekk Serigne Touba noonu ko dama am liggéey bu may liggéey lu foofee te damaa bëgg ngeen jàpp ca moo doon taxawaayu jumaa yi bi mu fi jógee nag suñ Moudou Moustapha jóge fi sëriñ sëriñ sëriñ seexul xaddim jóge fi sëriñ Modou Moustapha daal di taxaw mu woo taawam bu baax bi ñuy wax Seex Moustapha mbay Kéré waxtaan ak moom ndax booba jamono rëng-rëng ji bari na mu laaj ko Seex Moustapha na ko man dey li ma la mën a xamal koo ah koo jox addiya ku du sëriñ Modou Moustapha de di nga ànd ak kookee mu boole si addiya ak addiyaam jox ko sëriñ Modou Moustapha ci la euh, sëriñ bi defeewu aal nag daal di tàng lool bindab leetar jox ko Cheikh Moustapha jébbal ko na ko demal njaareem nga wutul ma ko Seexul Xaddim ba mu demee mu jox ko euh, sëñ Moudou Moustapha hmm, ba mu ñëwee njaareem mu jox ko sëriñ Moudou Moustapha sëñ Moudou Moustapha tippi lettre bi jàng ko mu wan na ko ci man man mataar ak lu ma am jébbal naa la suma bopp àddina ak àllaaxira ba mu ko jàngal ba pare na ko sëriñ Touba booleen na mi ci moom ci ñi ma batalee wan sëñ mataar mbay bokk na ci loole ba mu dikkee Cheikh Moustapha dikkaan mu def ko daf koo def aw aal daal di ne man de bu ma mooy ndigalal Serigne Touba kon Moustapha fan laa jëm mu ne ko kon nga xam ne loolu euh, ak yëg-yëg la loolu moo nu boole diir bu gàtt nag 1933 34 mu nelaw Cheikh Moustapha Mbaye mi ma la wax ne jëlee xalifaam daal ne dann Serigne Modou Moustapha yàggut tuuti moom itam 45 Serigne Modou waa wàcc ci liggéey mu dem ci Serigne Cheikh Mbacke Gaynde ma nag. a bokk ak moom jamono nag di gaynde gu matti digganteem ak moom lu sëriñ seex bëgg rek Cheikh Moustapha Mbaye Kéré taxaw ca boole kook euh, sàmm njaboot gi taxaw leen di màggal màggal gi moom àggan na ba ci ne màggal gi ay taalibeem da leen dana wax naa bu dikkee képp ku amul paas jar na nga jaay sa mbubb te ñëw ne ko sëriñ Modou Moustapha digle wan ànd koog moom képp ku képp ko bépp taalibe bu ñëw te bu bu mu gisul bu ëllëgee bu la gisee nee na lan moo tax ñëwoon ci màggal sëriñ Modou Moustapha gi Mm, boobu boobaa aw aal la koy def na leen képp ku ma yaakaar man Moustapha lii su Serigne Modou Moustapha Baye Serigne Cheikh Mbacke yore ko ku bëgg ànd ak man dañ nga ànd ak man moom moomee loolu la ci doon àndal ci jàng alxuraan ak xasaayit togg ay ñoom ci këram gii ci ko Khoudoss muy jàkkaarloo station bi foofu la nekkan nekk fa nekk fa ba yàlla dogal mën nii moom it mu wàcceeb liggéey rakam ju ñuy wax Serigne Thierno Mbaye momi it taxawaaye bis bobé gën ko yokk gën ko jappu bu bis bi diké mom lum mu leen fekkeel dinañ ko jaay lola and bis bi ngir ndigal ngir ndigal Serigne Touba ngir ndigal Serigne Mounou Moustapha Serigne tiarou nek fi mom ba 97 moom mu wàcceeb liggéey Serigne Ndiaga Mbaye taawam bu baax ba ñomi dik yes lu ñeubalam ci Serigne Mbacke Soxna Lo Yes lu ñeubalam ci Serigne Moustapha ndey mi fi nekk mom itam and ak taalu bi ci bis bi gën ko yaatal ba bis bi yaakar naaya presse yu bari xam nañ ko bu ca kër ga na mi taxawaay ba ci jàng alxuraan jàng xasaayid màggal guddi gi ci sunna ci ñoom ni ko sëriñ bi bëggee ci la ñu nekk ba néega ni ba sëriñ Njaga barki démb bi mu wàccee liggéey batale ko rakkam ju baax ji moom sëriñ ba siiru mu ànd ak sëriñ Mbay doomam ak sëriñ Cerno ak seeni rakk ñoom ñëpp ñu jàppaat ci bis bi fas yéene ndigal li nga xaay ne moom la sëriñ Moustapha Mbacke Mohamed mii di joxe mu nekk sëriñam donc doon waayam ci kër gi moom it ñu fas ne ànd ak ndigal li ànd ak Serigne Moustapha Mbacke Mohamed fas yéene ni mu bëggee bis bi ñu defe ko ni ngir yàlla ak ndigal ak mag ñu baax ña coocu noonu la waa Kéré ak njaboot ak Serigne Matar Mbaye Kéré gépp nekk ci bisab bi rawate rawatina ñun ñu nga xam ne mënul yàlla nattoo ñu féete Daaru Xuddoos waaye féete ak Serigne Moustapha Mbacke Mohamed Serigne Basirou nag mi ngi koy waajal comme ni mu ko àndee waa daayira bi ànd ko waa section yi ànd ko fédération bi nga xam ni moo lëkkalee section section yi bokk ci Kéré Mbaye yëpp ñu fas yéene taxawee bis bi buñ ci yàlla yóbbu ak dem mu gaaw fas yéene ko jàng alxuraan jàng xasaayit màggal guddi gi incha allah. ci ni ko Serigne Modou Moustapha santaane woon Serigne Cheikh Mbacke jàppee ko ni ba tey ji Serigne Ahmadul Muxtaar mi nga xaay nekk fi yàlla na fi yàgg te wér ak mboolem ak njabootam bis bi daal liñ ciy séentu ak li taxal ni taxawal ko yàlla nañ ci dajee ngërëmal Serigne Touba mooy li Serigne Touba waxan ne mooy bis bi ma gënal ci samay bis nun tax na daal ñu jàpp ko fonk ko di wut ku nu ko fonkale képp koo xaay nag ànd nga ci nun ngir Serigne Touba ñoo ngi la ci sant nun nag fas yéene nañ cee dem ba jeex tàkk incha allah yàlla nañ ci dajee ngërëmal Serigne bis bi ñoo ngi koy defee ci kër Serigne Moustapha Mbaye Kéré gi ci Daaru Xuddoos gi en face ak station bi yaakaar naa ñu bari xam nañ ko loolu mooy taxawaayu bis bi ci njaboot ak Cheikh Moukhtar Mbaye Kéré gépp waaye njaboot ak Serigne Moustapha di ñaanal sëriñ Basiiru mu fi xalifa bi ak sëriñ ba ak seeni rakk yëpp di ñaanal sëriñ Moustapha Mbacke Mohamed mi nga xam ne mooy sunu bunt ci sëriñ Touba te jaawale ñu ko dara di ñaanal moom it sunu borom yàggal ko ni di leen ñaanal yéen ñi nga xam ne yéen taxaw taxawaay bi yéen waa presse li ngeen jublu ci liggéeyal sëriñ Touba ci lislaam ji yal na leen yàlla dimbali ba nga ndaje ngërëm ni di sant ñëpp nag di sant mboolam ñëpp yéen ñaan yàlla ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alam nu daje ci ngërëma sëñ bi waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Ibrahima mbay yaakaar naa ne beneen laaj bi nu waroon laaj sax far na ko tàbbal ci tont bi muy waajtaayu màggal gi ak niñ koy dundalee alhamdulilah waaye bu ñu defee ab jàngat bu ndaw rek ci sëriñ Maxtaar mbay Kéré nekkoon na góor yàlla goo xam ne nii laataa muy gisante ak Cheikhul Xaddim mu ngi nekkoon ca la ko war wala mu ngi nekkoon ca yoon wa nga xam ne nii ngir bëgg mat góor yàlla muy dem di sàkku ji xam-xam wala jàngi ba suñ borom tegtal ko Serigne Touba Xadim Rasul noonu nga ko waxee kon yaakaar naa ne euh, jombul ne dafa am loo xam ne nii rek moom la Cheikhul Khadim doon mottali ci moom ba tax suñ borom tegtal ko ko comme noonu nga ko waxee mu fekk ko Mbàkke Kajoor mu liggéeyal ko ci niñ koy waxee kon liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim mënul ñàkk ci ku mën a doon ci ñetti fan yooyu nga xam ne nii liggéeyal na ko ko Serigne bi sol ko daal di koy euh, euh, bàyyi wala sëñ bi sol ko daal di koy delloo da jox ko ndigal mu dem wéyal ab liggéeyam ànd ak sëriñ bi ba ni fi sëriñ bi jógee mu sëriñ bi tegtal ko nag ndax comme ni nga ko waxee bi fi sëriñ bi bàyyeekoo euh, ni nga ko waxee bi coow li bëree wala bi sikki sàkk ji bëree mel na ni sëriñ tubaa defaral na ko defar goo xam ne nii. Euh, romb na fu muy yàqoo wala romb na fa muy jàdd aw yoon loolu moo ko tegtal Cheikh Mouhamadul Moustapha ba mu wéyal mission boobu wax nga ko ci ay kàddoom muy euh, wax na ne ndokk ba ma xëttu ndigalal sëñ Tuubaa waaye sëriñ bi du def du defar kenn kuy xëtt ndigalam loolu feeñ na ci góor yàlla gi nga xam ne ni moo di sëriñ Matar Mbaye Kéré euh, sëñ Matar Mbaye ni nga ko waxee léegi wax dëgg yàlla ñu gis njaboot gi mm, kenn mënu leen ci biir Daarul Xuddoos rawatina ci bis bu tedd bi nga xam ne ni moom la ñuy waajal kon dañuy daal di tënk rek di leen sant itam njaboot gi ci turu yow mi nga nga xam ne nii yaa leen teewalan ak sëriñ xaadim mi di leen jox dox daje incha allah rabbi lii nekkoon benn ci jataay yi nga xam ne nii waa diwaan àndoon na ko ak mbooleem cheikh yi nga xam ne dañoo aju ci kër cheikh Mouhamadoul Moustapha ngir waajal màggaluk sëriñ Touba Cheikhul Xadim fii ci Daarul Xuddoos te sëriñ Modou Moustapha Mbacke doon ko taxawu waaye lépp nag tegoon ko ci ndénkaaneel sëriñ Touba Cheikhul Xadim di leen jaajëfal di leen jox dox daje beneen jataay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sigil te weytoo madru yi te bul faale ko wuy seek farje ki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat na yaa wat ña daawoote ña daawaate Moustapha